Ibrahima Lissa Faye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba. Ibrahima Lissa Faye nga nekk président bu association des professionnels de la presse en ligne laaj bu njëkk euh, d'abord lan mooy jafe-jafe yi nga xam ne presse en ligne bi mi ngi koy jànkonteel fii ci Sénégal. Euh, jafe-jafe yi bëri ndax boo xoolee euh, presse en ligne bi depuis un bon moment ñi ngi wax floraison bi nga xam te ne gis nañ ko ci. ak fake news yeeg buzz yi nga xam ne dañuy def buzz juste pour gagner de l'argent et boo xoolee presse en ligne bi sites yi xam ci ne ñu ngi def ak doxal li nga xam ne moom la bi wax bëriwul euh, parce que code bi dafa ne maanaam pour ñu mën a reconnaître euh, une euh, presse en ligne il faut que mu recruter fen ñetti journaliste ci biir ñetti journaliste yi directeur de publication bi dafay am dix ans d' expérience rédacteur en am sept ans d' expérience reporter bi am nekk reporter bi doo génn formation et puis aussi it nga am rédaction c'est-à-dire ay locaux ba pare 60 pour cent contenu bi mu nekk maanaam loo xam ne yow yaa ko liggéey sa bopp c'est-à-dire sa rédaction moo ko liggéey. Mm-hmm. et donc tey jii nii boo xoolee site yi nga xam te ne am nañ loolu bëriwul. et floraison bi moom dañ ko yàgg di ko wax parce que floraison bi dafay créer maanaam jiixi jaaxa ci bopp nit ba tax na am na ci ñoo xam te ne ci news la loolu méngoowul ak métier journalisme n'est-ce pas et donc il fallait vraiment ñu clarifier loolu et ci aussi encadrement bi nga xam te ne euh, start-up yi nekk ci presse en ligne war nañ ko amuñu ko gars yi li fi nekk ni mënatuñu wax ne kii bu yees la waaye nag aussi euh, màgget fi màgget bu tax ñuy wax et aussi war nañ mën a jàppale ñi nga xam te ne ñoo nekk ci mbirum presse en ligne bi pour gën ñu gën a yokk emploi yi mais surtout ñu gën a développer le secteur la parce que ku ne xam na ne technologie euh, màgg bi dafa gaaw et boo def ko attention rek ñu bàyyi la voilà ñu bëri fi ñu nii sax mënatuñoo ràññee distinguer euh, presse en ligne bi ak euh, réseaux sociaux yi est-ce que gisoo ni presse en ligne euh, dafa menacé wu en fait euh, fi ñu toll nii. waaw parce que en ligne bi moom euh, mën nañ ne menance am na ay menance yu posé wu ci kawam quand même euh, mais boo xoolee réseaux sociaux yi tey jii nii source d' la lu ci ëpp ndaxte fi mu nekk nii muy autorité yi lii xew lu bëri ci réseaux sociaux lay amee et donc bu fa xewee nag yow euh, en tant que presse en ligne ngaa bàyyi journaliste professionnel il faut ñu dem ci source bu ñu collecter information boo collecté nga def vérification yi nga xam te moo ci war boo defee vérification yi nga def traitement bi loolu yëpp en fait dafa am lu ko lal te leer na ci bopp képp ku journaliste professionnel boo traité doo ko diffusé waaye mënoo jël ci réseaux sociaux yi rek jël rek dugal mais réseaux sociaux yi feneen fi nga xam te ne gën nañu fan di problème mooy fake news yi parce que dafa bëri trop ñu koy jàllale ay fake news te boo vérifié def vérification ci war rek ñu juumloo la parce que léegi nii waxtuñu sax fake news mais deep fake la ñuy wax boo ne deep mooy maanaam ñu jël ab vidéo jël na exemple Ndeye Kumba Moro wax loo ko xam te ni jéggi dayo la kanamam ak lépp boo gisee da ngeen ne ah lii de Ndeye Kumba ko wax fekk na booba hmm. en fait dañoo defar benn avatar wala defar benn genre vidéo boo xam ne juste visage yu Ndeye Kumba jël sàcc voix modifié ko dugal ko hmm. donc pour wax la que ne maanaam kon réseaux kat am na euh, ay danger bu grave boo xam ne mi ngi ci hmm. mais comme ñun suñu métier ñun dañ ñoo wax vérification recoupement boo ko defee ku la ca war da nga xam ne kat lii nii information la. Mm-hmm. léegi nag euh, ñun euh, pour vraiment éviter woon lii nii yëpp depuis 2016 proposé woon nañu ñu taxawal li ñuy wax euh, observatoire de la qualité de la presse en ligne boo xam te ne dafay joxe ay certification di joxe ce que ce qu'on appelle un label au site respecte les normes. journalistique nga xam te ne ku dugg ci site bu am certification wala benn label da nga xam ne kat site bii kat euh, respecté na normes yi et donc c'est digne de confiance waaye boo duggee ci site amu ko nga xam ne kat ah site bi kat lu ma fi dal maa ngi teg sama bopp ndaxte amul certification amul label juste maanaam pour maanaam dissocier pour nit ñi mën a bañ a juum euh, ci euh, site yi quoi léegi euh, en tant que journaliste Ibrahima euh, Lissa Faye euh, ban jàngat nga am ci dagg bi ñu dagg signalu groupe Walfadjri ci incident yi nga xam ni moo amoon Mbàkke coow li daal di bari sénéral sax nee na Walf liñ doon wane mën na indi fitna ci réew mi réew mi daal di jaxasoo moo tax ñu dagg signal bi est-ce que ànd nga ci explication bu Babacar jaañ waaw wala déet ban jàngat nga si am mën naa ne explication Babacar Diagne dafa jagadi hmm. eh, doy waar ba nga xam ne wax dëgg fa yàlla man dafa ma bett waaye nag ko xam Babacar Diagne lii warul la bett warul te foofu laay mën a yem ci nit ki parce que man bëgguma di wax waxu mais mais Walf bi ñu coupé signal bi voilà gisuma lu mu def ba ñu war a mën a coupé signalam benn te bu doon def na dara ba ñu war a coupé signalam code de la presse bi dafa teg maanaam ay ponk yu leer pour ñu mën a yegg ci coupure du signal. mooy que maanaam euh, article deux cent dix bu code de la presse bi dafa ne yow d' abord il faut nga autorité de régulation il faut mu def mise en demeure bu defee mise en demeure waa ji arrêté mu defal ko avertissement mën na ko defal sax deuxième avertissement maintenant nag bu dee waa ji nag léegi euh, deful li ko wax boobaa am na droit mu couper signal il dara du ko fekk. et boo jëlee code de la presse code bi moo sut lii di cahier de charge yi sut aussi li nga xam ne mooy convention yi nga xam ne moom la CNRA signé ak entreprise de presse audiovisuelle mm-hmm. et boo xoolee ci décision wu CNRA bi moom mi ngi visé li ñuy wax cahier de charge yi ak convention yi te convention yi ak cahier de charge yooyu noonu ñoom ñi ngi jël seen i légitimité ñoom maanaam bu dul woon code de la presse bi du am ndax seen fondement légal seen base légale mu ngi jógee ci code de la presse donc code de la presse bi mënut a wax lii yow nga tey ka tekk fële di sukkandiku ci loo xam ne ci la cahier charge yi wax ak convention donc mu nekk loo xam te ne lu doy waar la ba moo tax vraiment ñi ngi sant ñi mobilisé wu ñëw ci sëccunu euh, Walfadjri bi ci mhm. vendredi bi et bëri woon nañ trop takkoon nañ trop et j'espère que aussi état bi dina tirer euh, leçon vraiment ci message yi nga xam ne euh, ñii fi ñëw yëpp jàllale nañ ko et surtout aussi vraiment ñu xam ne ko aussi CNRA dañ ko war a soppi toujours te teg beneen régulation beneen régulateur bu bees organe régulation bu bees boo xam ci ne moo jëm moo code bi parce que code bi di mu wax dafa leer parce que code bi dafa jox maanaam mandat de transition au CNRA mandat de transition boo xam ne ëpp na juróomi at nag ah ci rek la xew et na dayoo et doy na waar léegi nag euh, CNRA normalement amul woon droit pour def yi nii yëpp amul woon sax droit signer convention ak rajo yeeg amu ko woon sax droit boobu noonu ay la yowoon def na ko mais yi aussi li ñu war a def mooy dissoudre ko parce que nekk dafa kaddu ay texte am mayetu ko muy def yenn liggéey bi contexte bi aussi mayetu ko ko et donc autorité yi dañu war a jël seen responsabilité dissoudre CNRA beneen problème moom mooy ci euh, procès Mame Mbaye Niang Ousmane gis nga ni euh, Ibrahima Lissa Faye euh, am na ay taskatu xabaar yoo xam ne takku der yi ñu ngi doon dal seen kaw te ñu ngi doon def seen liggéey en tout cas di leen malmené euh, di leen jàpp ban jàngat nga am si encore euh, taskatu xabaar yi nga xam ne bu ñu wàccee ci terrain bi du ñu leen yombalal seen liggéey. xam nga loolu aussi état bi mi ngi violé euh, l'article huit et dix de la constitution bi nga xamante ne dafa def un principe sacro sacro-saint euh, le droit à l'information au public le droit à l'information au public dafa nekk loo xamante ne lu sacré la constitution bi jëmmal ko déclaration des droits de l'homme jëmmal ko à son article dix-neuf et donc force de yi nga xam ci ne maanaam dañuy euh, xëpp journaliste yi ak di leen di dàq yi ak di leen di jàpp di leen di tëj parce que simplement dañuy contourner barrage yi pour dem wute information ñoo ñu nekkuñ ci yoon bu ñu demee nag vraiment ba dëkk ñu di fouler au pied maanaam les dispositions de la constitution musiba am musiba am parce que li leen jàppee teguñu ko fenn ci yoon journaliste yi sànniwuñu xeer sànni ñu grenade lacrymogène taalal ñu defuñu dara jël seen bic ak seen feuille jël seeni micro ak seen i caméra pour dem wuti information balancer que ñi nga xam te ne ñooy population bi buñ leen dee jàpp nag ndax loolu musiba am na kon ci dëkk bi et c'est vraiment moo tax ñu dénoncer que di ko ñaawlu di ragal ne vraiment que classement Reporters sans frontières bii nar a ñëw Sénégal dina ci perte place yu doy waar ay ragal naa ne vraiment aussi dina am ay njeexital digganteem ak ay partenaires voilà euh, beneen laaj dernière question Ibrahima Lissa Faye ci euh, jamono ji ñu nekk gis nga ni arrestation yi bari na ay membre opposition bi rawatina waa Pastef ak ay activistes situation bi daal doy na waar ci tere euh, li nga xam ne mooy liberté de manifester euh, liberté d'expression am na problème surtout pour taskatu xabaar yi comme ni nga ko waxee est-ce que mën nañu wax ni fiñ tool nii Sénégal réewu démocratie la waaw wala déet. ah donc réewu démocratie bi de bu doon ci doon ne écran téléphone la ñu ne fi nekk nii écran bi li ci des bëreetul ndaxte mënatoo sax lire dara wala mënatoo gis dara ndaxte jamono jii moom. jàpp gi moom wulee na ñaay boo xamante ne doy na waar trop trop trop trop trop pour de ay délits d'opinion ay délits politique ñu jàpp ci ay nit tëj leen nëpp leen jant bi ay weer weer loolu nekk na lu ñaaw yàq seen avenir nekk na loo xam xamante ne lu ñaaw la lu jar a dénoncé la moo tax état bi il mu xoolaat boppam et surtout ñu xoolaat vraiment naka la nit ñi di toogee waxtaan trouver des solutions yu pérennes dëkk bi toujours ak jàmmam ni ñu ko dee seen liggéey euh, dëkk bi di suqaliku entreprise yi di suqaliku vraiment moo ëpp solo li ñuy nekk di def nii et vraiment man dama ruus am kersa fu nekk ni boo ma voyagé tey daje samay nawlay journaliste bu ma xam ne mu leen jox pale bu njëkk dañu doon xool ñu kañ dëkku démocratie dëkk boo xam ne dañuy voté tey jii nii balaa nit ñi di tëdd am résultat yi euh, benn ay du jóg coow am kenn du xeex kenn dem prison waaye am na doy doy na waaye jar na ci. Ibrahima Lissa mi ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité. voilà may fàttali yow yaa jiite association des professionnels de la presse en ligne de la presse en ligne.